donc comme Macky se sent menacé il a besoin de se protéger d'organiser son clan parce que son parti aujourd'hui est à lambeaux parti am c'est c'est divisé euh, Amadou Ba bi nekkoon son candidat dem na yóbbaale na sax raqu Macky Sall am une partie de l'APR bu mu àndal euh, Macky bi mu tànnee candidat Aly Ngouille Ndiaye dem na ndéem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm Boun Abdallah Dionne et d'autres dem nañ donc déjà il est en partie fragilisé donc Macky bëgg na dajale li nga xamante ni moom la amee. mais yow tu clairement que Macky soxlawul nekk député parce que man comme mooy li may wax euh, Macky Sénégal desalu ko dara. Macky mm. yàlla desul ko dara Macky chef de quartier rek la déggul. waaw <laughs> <laughs> ah, jaar nekk na. Euh, maire de Fatick. Macky nekk na DG Petrosen. NDC c'est 100 millions jóge fa nekk ministre des mines xam nga kañ la ko nekk ma premier gouvernement Ablaye Wade bi mu tasee ñoom Landing dem ñoom Niass Macky moo remplacé woon Landing Macky jóge ministre de euh, ministre des mines et de l'énergie dem nekk ministre des collectivités territoriales pare ministre des collectivités territoriales Macky nekk premier ministre non non. assemblée ci non non non bi mu nekkee ministre des collectivités territoriales. dafa dem mu nekk ministre de l' intérieur. moo fi indi woon Mass Khouraa ministre de l' intérieur. waay ñoom kii. waaw ku nu mu tuddati mu war ndaw. voilà Macky bi mu jógee ministre de l' intérieur ñu def ko premier ministre 2007 premier ministre mu nekk président assemblée nationale jógee présidence assemblée nationale directement. nekk président Sénégal. kon qu'est-ce qui fait courir Macky. donc c' est pas un hasard que Macky bi mu tànnee son candidat Amadou Ba. joxu ko parti bi Macky daf ko tànn candidat taf woote congrès fii King Fahd Palace jiitewaat APR ça veut dire que toog na ci parti bi. yor la li mu doon xaar mooy bu Amadou Ba gagné woon mu def à la Poutine Medvedev c'est-à-dire. maa yore appareil bi pour mu mun a ñëwaat donc troisième mandat boobu génnagul ci maay na xam nga loolu benn la mais beneen jàngat bi nga ci am mooy kii il te parle de haute cour de justice ñii bi ñu génnee am na kàddu ñu yëkkati wax sa responsabilité te tey mënoo toppee président lu dul haute trahison. Mhm. te président mënoo ko topp lu dul nga installé haute cour de justice te pour nga am haute cour de justice il faut nga am trois cinquièmes des députés de l' assemblée dire ci li mu député yëpp sur cent soixante cinq faw nga am quatre vingt dix neuf. donc Macky va essayer de se protéger de protéger son son clan de protéger son gars mais beneen bi il se projet parce que pour une fois seetlu ñi fi jàll ñëpp Senghor daa nekk président mu ñëw génn. sénégalais sénégalais les adieux. <laughs> après qu'est-ce qu'il fait académie française la dem di bind ay poésie ay femmes noires ay femmes nuyam kenn déggul Senghor duggul sur la chose politique. defu ci benn ingérence. Abdou juuf ndax lu kazaalika ba ñenn ñi dañoo Abdou Diouf dafa bàyyi parti socialiste c'est pas normal kenn déggul Abdou Diouf mu wax ci parti socialiste. Abdoulaye Wade bi mu fi jógee toog na deux ans ñaari at. la doog a ñëwaat Sénégal te li taxoon mu ñëw Macky moo créé woon conditions yi taxoon Abdoulaye Wade ñëw mais Macky yow en six mois seetlul bu baax est-ce que si diggante juróom benn weer yooyu les blessures yi nga bàyyi woon est-ce que les blessures se sont cicatrisées. est-ce que tu t'es réconcilié avec la majorité quand je dis la majorité des Sénégalais bien entendu que am na ñu ànd ak Macky Sall mais ñu ànd ak Macky Sall tey ils ne sont pas la majorité. parce que bi mu amee candidat il a eu 34 pour cent beneen bi Wolof Ndiaye nee na kuy naaw say donc de rouge fa nga jëm daa sorewul voilà quelqu'un qui était candidat aux élections présidentielles en 2019 en 2019 Macky Sall a. 58 pour cent. calculé 58 pour cent la Macky am 2019. 5 ans après. Macky moo candidat am ñu am 34 pour cent ci 34 pour cent yooyu Amadou yéegi Macky arti <laughs> jooni ko Macky addi pulaar laa la wax. si 34 pour cent yi Amadou dem na Macky ñëwaat na léegi Macky lan la indaale. est-ce que dina mën a amaat les 34. ça c'est une véritable question beneen bi pour terminer. waaw jàmbaar Macky est sorti par une porte. mais il veut rentrer par la fenêtre. Oui. maintenant est-ce qu'il pourra passer par la fenêtre c'est ça le vrai débat. Oui. et aujourd'hui euh, c'est comme s'il vient pour prendre une revanche politique c'est-à-dire même dans son discours aujourd'hui il dit ouais la raison de mon engagement c'est que d'avoir une opposition forte donc ça veut dire Macky veut s'ancrer dans l'opposition pour euh, essayer de jouer les troubles faits est-ce qu'il va réussir son coup beneen bi nga xam ni war nga ko seetlu parce que man nante maa laa wax ak yow ak politiquement <laughs> politique yëpp nante la dafa am Youssou Ndour la mu làmb ji fi amoon daaw verdict ba la ñuy xaar ba tey xam naa dégg boobu juddooguñu mooy jamono jamonoy mbéygee ak dugalees <laughs> mais combat bii passé amul euh. Sonko moo nekkoon mbër mu mag mi dañ koy biisaat fexe nañ ba bëriwut waaw ci seeni pexe waaye mag yi buggoon tamit amut ndax bu sañoon mooy samp te sampuwut léegi nag comme bii bëgg na léegi combat bu mag bi diggante Sonko lay doon ak mag léegi est-ce que Macky day ñëw di ko jéem a nengeñ wala di ko jéem a plaqué wala Sonko doo koy mbot deuxième pied léegi nag foofu beneen coow la mooy tey la ñuy xam ku mën sa morom parce que yi daa ngemboon mbërëm indi ko ci làmb ji. oui Sonko ngemb mbërëm indi ko ci làmb ji mbëru Sonko yenu mbëru Macky ba ci. <laughs> dóor ko suuf léegi nag comme mag yi moom xeeb na jël boobu daa ñëwaat léegi mooy. ndax confirmation lay doon wala revanche moo tax loolu dama la koy joxal. jërëjëf Mbaye merci beaucoup Cheikh Awa Talla. le la politique quoi léegi noonu laa la euh, man man mon analyse c' est imagé. vous savez pourquoi parce que euh, d' habitude dañu am ay intellectuels yoo xam dañu am complexe. quand vous voulez parler aux Sénégalais. moi je m' adresse aux aux Sénégalais des des profondeurs. c' est à dire mënoon nañu fi ñëw indi ay concepts idéologiques. parler de sciences politiques où les gens auront du mal à, à me comprendre ou à me comprendre. Moi, mon style à la télé depuis 8 ans, j'ai un langage urbain. C'est-à-dire pour que mon message soit perceptible, pour que mon message soit dulier et compréhensible. Moi, parfois, pédagogie, là, si expliquer nga woon ko exemple yu simple mu mën koo xam lamb ji laa la mënoon jox exemple ndaxte Ousmane Sonko nekkul woon candidat ci élection yu passé te Macky nekk ko woon cette fois-ci Ousmane Sonko est tête de liste Macky Sall est tête de liste donc on va se retrouver avec ñi nga xamante ni combat bi ñu amoon combat par procuration la woon parce que Macky moo indi woon Amadou Ba te Sonko moo indi woon Diomaye ah. cette fois-ci Sonko moo nekk ci géew bi léegi nag est-ce que Macky dina ko fekk ci géew bi te bu ko fekkee ci géew bi lan la fay jëlee moo tax ma ne la le 17 novembre mooy le combat des gladiateurs on verra si Ousmane Sonko va confirmer sa puissance et sa force politique Macky Sall va essayer de résister jërëjëf merci beaucoup Cheikh Omar man du ma du ma ay làmb man man du ma sax chroniqueur romb naa ko. Ah, parce que ay tëggkat tam ay bu ñu nekkee chroniqueur. ay ñoo xam ni <laughs> ci Bayra Aïd Sarr lañ doon fen <laughs> man man du ma chroniqueur man xeeb naa chroniqueur. barke yàlla voilà voilà non da ngaa aay nag. non du aay maanaam. non da ngaa naa loolu am naa jaar-jaar bi am naa expérience bi am naa jàng bi te mën naa ko man consultant la du ma borom chroniqueur. doxalal. incha allah wa taala wa samedi bu defee damay ñaax faatu sax. cun borom sogo sogo <laughs> gars yi ko bàyyi sogo. cest à man maa dul toog fii. waaw xam nga waxtaan pour mu neex moo tax Sonko dañ koy man dama koy gërëm xam nga lu ma koy gërëma au moins élevé na débat bi parce que bu njëkk ba ci saaga lañ nekk. ci waxante lu ñaaw yow diw mais léegi débat bi c'est un débat économique. débat bi ça parle de. c'est au niveau quoi waaw léegi nag comme niveau bi dafa kawe am na ñoo xam ne boo leen toogoon sa plateau bi du ñu ubbi seen gémmiñ ah, parce qu'ils pourront pas parler de macroéconomie. Ouais. ils pourront pas parler de la transformation économique ils pourront pas parler des questions de développement durable ah oui développement xam-xam la dañ koy wuti. man damaa demoon wuti ko damaa fay xaalis bu bëri dem France dem ah. jàngu université Lyon. Ah, moo tax médias yi ñoo ñu war a dimbali. ni ñu war a dimbalee mooy ñu poser un débat boo xam ne si. moo war a intéresser les Sénégalais un débat boo xam ne ci réew mi fan lay nekk. loolu mooy tax homme politique bi su toogatee. il est obligé moom mu wax xam-xam. parce que réew mi nit ñi du ñu ay xottu bopp. ba ci ñi lay seetaan am na ñoo xam ñoo la xam-xam junni yoon ba pare lem toog toog ne tekk di la xool mais est-ce que ñun dañu war a servir chaque jour débat de xottu bopp quoi débat de nañ xastante nañu waxante lu ñaaw pour man même dans l'opposition. c'est bien que ñu poser un débat. oui Sonko indi na programme indi ñëw leen ngeen poser débat. ngeen ko suñu vision nii lañ ko gisee jàpp nañ lii moo gën. mu nekk un débat constructif parce que dañu tollu ci xeltu dañu toll fu ñuy defaree réew mi xam nga sëñ Saalum bu tuddee toolam bi xel koom xel koom-koom la kon liy doxal réew ci xel lay jóge kon il faut xel ya laab xel yooyu il faut mu am xam-xam. jërëjëf si amee bu fekkee ay nit yoo xam ni toog topp kaa waxante lu ñaaw loolu lañ fi nekkee. waaw wala ay nenu baxal ay Sambata Ndiaye loolu du xam-xam jàmbaar. d'accord jërëjëf bi dafay baax ngay wax sa bopp ah. man diwaan bi merci beaucoup jërëjëf baax day baax nga wax na c'est important parce que dëkk bi moom euh, noonu la ñu bindoo. jërëjëf merci boo fi nekkee léegi dafay baax yow xoola balaa